sayidina wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain mbokki jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara ci bis bu tedd bi di ñaan yàlla sunu borom tabaaraka wa taala mu nangul ñu mboolem jaamu guñ ciy def ñoo ngi nuyu ak di ziyaara sëriñ bi di ñaan yàlla mu yàggal ko fi tamay ko wér ak kàttan ba mu yeggale mboolem naalam ci sago tañ ànd ko moom mbokki jullit yi tey dañoo delsi nag ci ñeenti tomb yu mag a mag yi nga xamante ni bokk na ci yi nga xamante ni sëriñ bi radiallahu anhu tabax na ci wooteem bu màgg bi ñeenti tomb yooyu nag ba ca jiitu mooy xam-xam bu am njariñ bu ñaareel ba mooy jëf ju baax bu ñetteel ba mooy ay teggin yu ñu gërëmloo ñeenteel ba mooy sàkku lu lew muy ñeent yoo xamante ni waxtu nekk war nañ koy nafaraat di seet fuñ ca toll bu njëkk bi mooy xam-xam bu am njariñ xam-xam bu am njariñ nag mooy xam-xam boo xamante ni am na jeexit ju am njëriñ ju muy def ci nit ki wala mu koy def ci mbooloo mi mu àndal te njëriñ loolu itam nag mooy njëriñ loo xamante ni diine na ko te njëriñ la diine nangu nag mooy njariñ loo xamante ni njëriñal àdduna nga ca wala njëriñal àllaaxira buñ dee seet xam-xam bu am njëriñ boobu nag bokk ne ca ca jiitu mooy xam-xam yi aju ci wàllu diine am na am solo goo xamante ni sax nit ñu baax ni ku masaa géeju ci yeneen xam-xam yi te amoo xam-xamu diine duñ la jàppee boroom xam-xam buñ nangu ñoom loolu la sëriñ bi di jungi ci masaalikul jinaan inna alladi lam yaxsa rabbal alamin laysa bi aalimin walaw afnal funun koo xamante nii xam-xam ba mu am jóolu ko ragal yàlla duñ ko jàppee borom xam-xam ñoom kon ñu xamante ni kon buñ dee xam-xam bu am njëriñ ba ci jiitu mooy xam-xamu diine xam-xamu diine boobu itam nag xam-xam ba lay xamal sa faratee jëmm yi nga xam ne borom bi dala koo gàll te kenn mënu la caa wuutu xam-xam boobee nga jàngi ko moo ca jiitu xam-xam boobee moo jaraloon sëriñ bi mu taarif ay téere yu bare baree bari yoo xam ne ku ko ubbi nangu koo jàng da nga ca xamee sa faratee jëmm yàggoon na ci ne na ngeen jàng seen faratay jëmm ba xam ko doonte ne ci seen làkk ngeen nàmp ngeen koy jàng taallamuha walaw bil lughati al ajamiyya na ngeen jàng seen faratay jëmm doonte ne sax ci làkk ngeen nàmp ngeen koy jàng wa man lam falaa yarumanna illa nafsa ku nanguwut a jàngi ba xam faratay jëmmam ëllëg bis penc bu muy yedd bu yedd bu yedd ku lu boppam ndax lu ko dal rek moo ko teg boppam loolu na ku ko déggee ci ku toll ni bi daa xam ne ab tëkkoonu ci ku ci ku sàggan ba xamoo safara tey jëm xam-xam bu am njariñ boobu itam nag lay wane ne am na njariñ bokk na ca jenn jëf du mën a tege ci aw yoon lu dul danga ko jafe ca anam gañ la ko digale woon te anam gañ la ko digale woon rawatina mu ak jaamu yàlla benn muy julli wala woor wala natt asaka wala muy aji màkka ak yu deme noonu nañ koy defee nag kenn mënu koo xam ci te waxu lu doon da koo jànge moo tax sëriñ bi yàgg a soññee lool ci jàngi xam-xam rawatina xam-xamu diini jàng xam-xamu diini ba moo tax mu ne li njëkk ci ab taalibe murit li ci jiitu ci moom la ñuy njëkk a sàkku ci moom mooy mu jàng ba xam kan mooy borom bi tabaraka wa taala awwal waajibin alal mu taxsiilu zaadihi min at-tawxiidi nee na nga jàng ba xam kuy borom bi ba xam lam lay digal nga cay tënku lam lay tere nga koy bàyyi loola mënut a ñàkk ngal la bu ko def mukk wala ngay dem di beru ji naan da ngay zikkar ak di jihaat ak sa bakkan te jàngi woo ba xam kan mooy borom bi kon xam-xamu tawxid boobu ak li jaamoo yàlla moo jiitu ci xam-xam yi nga xamante ni mënta ñàkk ci ab jullit te xam-xam boo xamante ni nag dafa sukkandiku wéeru ci xam wala jëf joo xamante ni dafa sukkandiku ci ci ak xam ak ko ràññee moo ëpp ak yool moo ëpp njariñ ci jëf joo xamante ni ka koy def fay tëñëx waaye teg ko ci xam-xam teg ko ci ràññatle loolu itam sëriñ bi yàgg nañ cee yee mu a wal ilmu afdalu axi min al amal wa ussuhu fa faaza man lahu xasal nee xam-xam sax day bu ñu ko doon gam-gam lee jëf xam-xamay jiitu moo tax nag ku ko am texe nga qaliluhu bil ilmi aktharu sawaab min al kasiri maa jëf ji nga xamante ni néew na te xam-xam mu ëpp ak lool fuuf jëf ju bari wala jaam yàlla gu bari boo xamante ni ak réer moo ko lay taay kon xam-xam bu am njëriñ boobu bokk na ci li sëriñ bi njëkk a yittewoo bi muy yar taalibe yi ñaareel ba mooy al amalu saalix te mooy jëf ju baax al amalu saalix nag moom la tuddee ak jaamu yàlla jaamu yàlla boo amee xam-xam ba noppi xam-xamu diini na ngay tàggat say cër nag ci jaam yàlla waaye nag jëf moomu te mooy jaam yàlla ginnaaw xam-xam bu am njariñ boobu la ñëw dañuy mottalante kenn ci ñu ñaar mënut a dem bàyyi morom ja doonte ne sa xam-xam bu am njariñ moom bu fekkee nan nga caa ñàkk benn jiitalal xam-xam bu am njariñ moo tax sëriñ bi doon wax naan wal ta'laman bi anna ilman wa amal wa ma wasilata saadati ajal na nga xam ne jàng xam-xamu diine ba am ko wëlbatiku di jëfee la nga jàngoon nee na ñooy ñaari yoon yi nga xam ne ni ku am ak taxe ca nga ko jàng xam-xamu diine ba am ko wëlbatiku di ko jëfe ci sag jaamu yàlla waaye nag mu ne jëfe ga am na solo lool ndax njariñ xam-xam banam laa mën a jariñ rawatina xam-xamu diine mooy na koy jëfee ci sag jaamu yàlla lakinnamaa tamarahu kan nafi fi amalin bihi fakun dal jami jaam yàlla itam li tax kenn mënu koo def ci tëñaxu dangaa war a jàng ba xam ko jaam yàlla kenn mënu koo def mu baax lu dul dafa dëppoog sunnas yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba noppi itam ka koy def ca yàlla tabaraka wa taala moo tax sëriñ bi radiallahu anhu bi mu ñuy firil laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fab loola di ko jaamu jàppe ko sa yàlla bis dana ñëw nga xam ne benn bu amul bu amut bu ñuy jaamu te mu yeyoo jaamu ko ku dul yàlla mu dëgg moomee waaye itam mu ne wa man abadallaha bi gayri sunnati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fa sa yaalamu anna muhammadan rasulullah nee na itam yàlla mu dëgg moomu sax ku jóg ni dama koy jaamu yàlla mu dëgg mu nga xam ne mooy yàlla dëgg-dëgg ku jóg ni dama koy jaamu waaye damay gannaawal yonent bi alayhi salaatu wasalaam duma teg fenn sunnaam du ma ko yittewoo nee na ëllëg bis penc da nga xam ne Muhammad day muy rasulullah muy ndawal yàlla tabaraka wa taala kon kuy jaam yàlla da ngay fexe ba mu dëppoog sunna si yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye na nga jaamu yàlla ngir yàlla rek ba nga jaamu yàlla ngir mbindéef yi te jëf ju baax jooju te muy ak jaam yàlla bokk na ci lii waral nit ki tàbbi aljanna ginnaaw yërmaande yàlla tabaraka wa taala moo tax suñu borom doon ca suratul Araf laaya juróom fukk ak juróom benn inna rahmatallahi qaribun min almuhsinin nee na yërmande yàlla lu jege lool la waaye ñan la jege nag mooy ña daa rafetal seeni jëf mooy ña nga xamante ni bala ñuy jaamu yàlla dañuy jàng ba xam ne ñuy jaamu yàlla ñu defe ko noona te dëppale ko sunna si yonent bi aleyhi salaatu wasalaam te jublu ca yàlla mu waxaatoon tam ci suratul araf laaye téeméer ak juróom fukk ak juróom benn ne wa rahmati wasiat kulla shay fa sa aktubuha lilladina yattaquuna wa yutuuna zakata walladina hum bi ayatina yuminuun nee na sama yërmaande ñëpp xaj na ca waaye nag ñi ma koy jagleel mooy ña ma ragal tey natt asaka ñi nga xamante ni itam gëm nañ sama mandarga yeeg sama aay yi ma wàcc ci kaw suuf

إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا Union jàmm ginnaaw yërmaande yàlla tabaraka wa taala mu am ñoo xamante ni nag dañuy doyadal ak jaamu yàlla benn ñu doyadal julli wala koor wala natt asaka wala aji màkka te boo leen laajee ñu ne sunu boroom yërmaandeem ak kàttanam ku nekk xañ nga ca ñooñu nag sëriñ bi radiyallahu anhu tontu na leen ci maj na ko ci xetu fanweer ak ñett mu ne xanaa ñiy wax ne ñu day sëriñ day wax ne xanaa ñiy wax ne ñii doy dal ak jaamu yàlla ngir layane yërmaande yàlla ak kàttanam yaatu na xanaa dañoo xamul ne al awaamiru turuqun ilal jannati allati wa'ida al muttaqun ndigal yi muy julli yi woor yi natt asaka yi aji màkk yi ndigal yooyu ak lépp ndigal lu wax ci alquran wala sunna mooy ay yoon la yoo xam ne nii ku ca jaar te wàccoo ko sa kër ëllëg mooy aljanna xanaa ñooy wax loolu itam xamul ne tere yi mooy yoon yi nga xam ne ku ku ca ku ko topp te wàccoo ko sa kër ëllëg wala yaasu billaahi mooy sawara sawara sa nga xamante ni la koy taal nekk am mattam mooy nit ñi ak saw ak ak dëkk sëriñ bi teg ci ne kon fa mata kuntu ala amrin faqad salakta tariqa al janna saa yoo xoolee sa bopp ba gis ne yaa ngi ci ndigal bi yàlla digle wala yeneen tàmba na la wóor ne yaa ngi soobu yoon al janna soo ko bàyyiwut tàbbi al janna waaye mu ne wala ak subi naag nag safaan ba ñu bon ku ko def taseeg safaan ba mooy ku soobu yoonu tere yi itam na ko wóor ne soobu na yoonu sawara wala yaasu billah kon ñu xam ne jaam yàlla moom kenn du ko doyadal mu teg ci moom sëriñ bi ne am na ñoo xamante ni ñuy def topp njort lañ koy tuddee te topp njort baaxul ñu ne ko lan mooy topp njort mu ne mooy koo xamante ni soo ko digalee jaam yàlla mu tontu na ne ah li ma ciy jaamoo yàlla xanaa xam nga ne yàlla mën na maa tàbbal aljanna ci lu may topp ma di ko topp sëriñ bi teg ci ah, loolu wax dëgg la yàlla day ci kàttanam mën naa tàbbal nit aljanna ci lu dul topp yàlla waaye nag walakin allaha qadara ala dalika wala waaye nag suñu borom mane loola la mane leneen itam nag mën naa loola waaye itam nag bëgg ko bëggut tàbbal nit aljanna te du yàlla wa ma lam yurid lam yurid te lu borom am loolu ci misaal moom sëriñ bi xanaa gisu leen abo jaxin noonu yàlla ba kooku de suñu borom leen abo bakrin siddiq moom mu tàbbi aljanna ba na ko bëgg ko moo tax mu tàbbal ko aljanna kon nag topp njortu baaxut topp njortu mooy ngay ñu digal la ak jaamu yàlla nga bañ koo def ba noppi yaakaar na daa tàbbi aljana ginnaaw bi xam-xam bu njëriñ bi jàllee bu am njëriñ bi jàllee jëf ju baax ji te mooy jaamu yàlla topp ca ñetteel ba ci sëriñ bi tabaxoon wooteel bu màgg bi mooy adabul mag bi muy ay teggin yu gërëm ko teggin boobu nag sëriñ bi daf koo xaaj ñaari xaaj teggin yu war dox diggante nit ki ak moromam nitam ak teggin yi war a dox diggante nit ki ak boroomam bu dee moo tax moo xam ne kun mutaaddiban ala rahmaani rahmaani wa maa xalqihi bi kulli saan na ngay wone ay teggin sa diggante yàlla ak sa diggante mbindéef yi ba taxoon mu daan mu soññee lu bari lool ci ay teggin bokk na ci ay waxoon ni alaykum bi kasrati aadaabi fa innaha jaalibatu tawaabi na ngeen di bari ay teggin ndaxte mën naa xëccal nit ki tuyaaba nee xam-xam li ñuy am njariñ sax bu ànd koy teggin loraange rek lay jural borom xam-xam boobee akub coono fa kasratu ilmi bi ghayri adabi jaalibatun ilal adaa wa taabi ndax mu képp koo xam ne ma ngay sàkkoo sàkkoo topp sunna si yonent bi aleyhi salaatu wasalaam te ànd ko ci teggin def na ko xañ ak taxe ak njariñ et kullu min bi ghayri bi ghayri raama tibaa fa innahu yuxramu fawzan wa intifaa nee na ay teggin mooy ngeen ji lu nit kii denc ngir mu jëriñ ko ci àdduna ak àllaaxira te lu nit kii woon ne tedd nga am la la ca gën mooy mu am ay teggin wa huwa fi daarayni xayru kanzi wa xayru ma tazza bihi du izzi nag ndax ay teggin nit ki su ko amee day leeral xolam te da koy jegeel aljanna li annahu al munawwiru li janaani kama yuqarribu ilal jinaan nee na itam am ay teggin dana tax say dëkkandoo tagg la waaye a tax nit ki sawara sori sawara itam wa yujibu madxalata ziiraan kama yubaaxidu an niiraan man ko wax ci nax jox daay xaaj bu dee ay say teggin ñuy dox sa diggante moroomam sa moroom nit nag boo dee mag na nga yërëm gone soo dee gone na ngay wekk mag koo tollal ay at nga jàppe ko ni ko sa tariqatul adabi rahmatu sagir kal abi wal ummi wa tawqiru kabir wa jaala mislika ka nafsika sawa li wajhi xaaliqin ala marsi stawa ca nay waaye mun a teggin boobu nag sëñ bi nee na teggin boobu nag nit ki la ñuy ci moom moo ne ko digganteem ak ki moroom ak nitam bu ñuy sàkku sax ci ay ay moroomam ñuy wane ay teggin jëme ko ci moom bal i'tabir min nafsika al aadaaba wala tutaaliban bi asxaaba yow ay teggin sa diggante mbindeef yi ne sax mbindeef yow waruñ ay teggin jëme waaye yow da def sa wal walgal rek na ngay am ay teggin sàkku sax ci nit ñi ñu la koy fay ñeenteel ba te mooy mujj mooy talabul xalaal mooy sàkku law sàkkul la na muy liggéey ba am la di ko dundee di ko dundal sa njaboot loolu añ da saytu waajibul diin sëriñ bi daf ko jàppee farata farata nag mooy loo xamante ni dañ la koo digal soo ko defee ngir jëm yàlla am ca tuyaaba soo ko bàyyee yaayoo ci ay daan mu xam ne kon sàkkul la liggéey ba am la farata la wa talabul xalaali fardun yantani li kulli muslimin bi xëy te itam sàkkul la mooy yoon yi nga xamante ni nit ki ca la mën a amee lu muy dunde lu lew te nit ki su dee dunde lu lew dana tax mu mën a jaamu yàlla te dunde lu lew itam dana nekk ab sart la ci sunu borom nangu sa jaamu yàlla moo tax sëriñ bi waxoon ca mu nangu lu sudoon ne fakul xalaalan in aradta an tutiyaa allah wa rasula ya hada almutiyaa na ngay lu lew su fekkee da ngaa bëgg a topp yàlla te topp ga jag su fekkee da bëgg a topp yonente bi te topp ga jag na ngay dundal law moo ko itam xam-xam ak jaamu yàlla mënta ànd ak di dundeelu alam te itam la ñuy tege mooy sàkkulu lew mooy am lew moo yoon ñoo xamante ni ci la nit ka a sukkandikoo ci boppam ba mën a am ak tànn am lu muy bañ am lu muy bëgg dana tax itam mu mën a wattu diineem ak karaamam misaal bi ñu ci joxe rek tëj waxtaan mooy sëriñ bi bi ñu diglee ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett bi ñuy taxawal jumaay Tuubaa ji daf caa boole ay kàddu dafa waxoon ne lii ma leen di dajaloon muy alal ji duñ juumu ma ci dajale alal rek ak tasaare ko waaye dama leen bëgg a jox bind boo xamante ni bind bu ñuy jëfe la bu am njëriñ ci nu ngeen di sukkandikoo ci seen bopp ak waxtu nekk ngeen def seen kamtulaay kàttan bay fajal seeni aajo ngeen di ko fajal seen bopp ci lu dul ngeen sukkandikoo ci kenn su ngeen defee lii ma la wax de lii ma leen wax ak lii ma leen jàngal ci lii da ngeen mën a seen diine ma ngeen téye téye itam seen bon kon mbokk yi ñeent yooyu muy xam-xam bu am njëriñ ak jëf ju baax ak teggin mu gërëm ak di fàggulu lew mooy lenn la ci nga xam ne bi sëriñ bi ci la tabaxoon woote bu màgg bi kon ñoo ngi ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala mu fayal ñu ko xayral jasa te yàggal tam te ñu ànd ko moom wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu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 الحمد لله الذي تفرد في ملكه وبقاه وتقدس وتنزه في أزليته فلا عين تراه حكم بحكمه في خلقه ولا معقب لحكمه ولا راد لما قضاه قسم الأرزاق والآجال بين عبادي هذا منع عنه وهذا أعطاه وهذا أسعده وهذا أشقاه أحمده على ما أهطاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من شهدها يبلغ منها وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم عرضه ولقاه أما بعد فيا أيها الناس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 فإنه زمان قل خيره وكثر بلاه واشتغل كل منا بطلب دنياه وغفل الغافلون عن الموت فلا حول ولا قوة إلا بالله وصار الدين غريبا كما كان مبتداه ووا أسفا وقلة حيلتا في يوم تظهر فيه الفضائح وتشهد علينا فيه الجوارح والحاكم هو الله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وفي الحديث أربع من الشقاوة جنوب العين وقسوة القلب والحرص وطول الأمل وفيه أيضا إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يدمر بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها الحمد لله الذي احتجب في حجاب جلاله فلا تراه العيون وتفرد في صفات كماله فلا تخالط الظنون أحمده سبحانه وتعالى بمحامده التي يذكره بها الذاكرون حامدون وأشكره بشكره الذي تقر به العيون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العالم بما كان قبل أن يكون وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله يا له من نبي تشرفت به الأنبياء والمرسلون اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين الشروط اللازمين إلى يوم يبعثون أما بعد فيا أيها الناس ما هذه الغفلة التي أنتم عليها عاكفون تسمعون المواعظ كل جمعة وأنتم عنها معرضون أتظنون أنكم في الدنيا مخلدون أم تتوهمون أنكم لا تموتون ولا تبعثون أين الأنبياء أين الأولياء أين المرسلون أين الأمم الماضية أين آباؤكم الأقدمون قد صاروا والله في التراب وهم لنا ذائبون متقطعون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا لا ترجعون وإلينا ترجعون وفي الحديث أكثروا من قول لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ولقنوها موتاكم وفيه خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين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 أزعمتم inda allahi xayrun min allahi wa min attijaara wallahu xayru raasiqiin allah akbar sami allahu liman hamidah أو أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس له طعام إلا من ذريع لا يسمن ولا لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سر مرفوعة وأكواب مرفوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سجعت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر

assalaamu aleykum